mu ngi noonu Tony Junior Tony Junior ak Ahmed Ath waaw boobu ñu jàkkaar lool mooy Tony Junior ak Ahmed Aidj Tony Junior moo ngem moo ngem lu orange moo féete ndi joor Tony Junior bu ñu fàtte moo génne léegi Jacob Baldé daan ko jël bu rëy mook Ahmed Aidj noonu jàppante nañu ca kaw Tony Junior Ahmed Papa Gueye Mouma ak Bulldozer ñu ngi préparé wu. Tony Junior Ahmed Aaj. dafa mel ci quart de finale yi ñu ne. ñu ngi ci quart de finale. ñu ngi ci quart de dem na demi-finale. Papa Gueye mu ngay préparé wu bëgg Buldozer Ahmed Aaj ak Tony Junior ñu nga di bëree Tony kal na ko Tony kal na ko waaye Ahmed na ca ae eh, eh, Tony war na ko ndombo déedéet lànk na lank na ko lank na lank na ndomb ba waaye Tony nga fa mu ko jàpp hee Tony daan na met aaj waa Tony mii mu nar tey Tony daan na met aaj mu nga demi final fekki ngañ seen ñuy xaar diggante Bulldozer ak Papa muuma kan mooy daan.